Yeah, yeah, yeah. You, you might have do the reggae. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. DJ, dama di beat bi. Bala ngay ki beat bi DJ. Té son bi xam nga li tax ñu andé ko. C'est c'est parce que Zizi dafa am ko xamantene dafa wañéku nekkoon fi mais benn grand frère boo xamante Thiès xam nañ ko senegaal xam nañ ko àdduna ñëpp xam nañ ko way muy Thomson waaw waaw xam nga danaan ñëw gaala di nekk ak ñun foofu noonu ñu kàpp di foo de xam nga moo waral tey ñëw ne ko Racine Puy Thomson jaale ko xam nga famille Sénégal Thiès ñëpp quoi way yeah Ooh, oh, oh, oh, Vive ton honneur. Ah, ah, xelam du mën a dal na xir sëriñam moom lay faye det ba tax na mën a dugg si tuuxi duna lu mu warul def xale la yow bantu lekk jot na mi ngi wër ak botam taalibe la moom buñ ko saraxul noonu bantu lekkam taalibe li ne ci xelam moom la teg bëtam moom taalibe la moom tundeewul na lu ne all right yeah man say taalibe yeah, yeah. Sonona. Aïe, aïe. Jalibé, Sonona. Jalibé, eh, eh. Sonona. Yeah, yeah, yeah. Yeah. MC, what's up? Yeah, yeah, yeah. MC, what's up? Yo, nyan, you know, if it's on your tech. Yo. Yeah, ñun ñoo fi non a teg AMC fii kenn du yeah, fi ñoo yéen lépp la I dagg teg AMC I am na ñu yëg-yëgam am na ñu xam am di gom force ndab wàcce tubay dañuy takk ñoor ñi ngi sent nawet ñu fëlu noor ñoo di baloo door xal bu rëcc sog da moor la ndiga demin ni mu xoon na fay du tàkk maw du dàkk ruuda ndiga la yoon bi leer na tey nga jàqree di deret pour la bamel si yéen jàll ni ko du mbugali tar na teguñu yow ñu kenn safara aaw ndiga de lakk ñoor la yoor la xoj la xoj la dis da teel la ne la du ma si nit dim la mat la ond ond toj sa monde shit xata fay shit play ñëw di sa kaw di bil dese yóbbu sa furu fara xam nga sa persévère ay yetulu course ñuy jëm ko buuxi ne ko doon jaamu xeer watch you you kenn muuxi metti comme mbaxalu xeer a ngeen di teg seen intégrale buñ koy dégg ci ñun as a moo dugg mbokk wala bësi bu ma ci doon rek faal ñu tere ko buuri li nga fi teg ci minute fi nu fi xelu buggi fo dama ne pare bi teg yow mënoo lu dul teg ci minute ndiga ñun la booy minim yi fu ban sa ñoor dinañ la ëlëm gëmm sa xel li tàkk ma aj ku doon laaj Waly Ngoye ngi ni ñun la antenne mu ne la waxal ba ñun ñu karmat sib la laaba bur bi feeña nii juróomu waxtu yalla ji rekay tax ñu waju job dina mel Ferrari ak taxi si tali bu tali ko peg ci lëndëm ñu nopp nopp mooy ko fon bi big bi fooy bi ci judduwaale ka doxal yow ñu ñeen ñu ñëw fi sañ a teg Yeah, ñeen ñu ñëw fi sañ a I I'm si free kenn du somfri ñu ñeen lépp la ñuy dagg teg MTV. I'm better, I MTV. am nañu yëg-yëgam. am nañu xam-xamam di demee gëm-gëm. ne ñi nga kontaan naa leen kuloon naaw. si teew naaw loor naaw doon avortement ci RG yu biir. kuy gis tooru ren naaw fa suba ci suñu seen babelu biir. sax ñuy sotti asiri kër ñu samp naaj ñoo ak si dund parce que game bi lam de génn génn ci ñoom du taale óoli buy shit. duñu rey kenn di yàq yàpp ñoom ñëpp lañuy lekk. xor def maye bi télé ñoom ñëpp la ñuy sànq bu ma sa laaj takkandeer ndax dina feeñ ci lëndëm ñëpp na xorom ba xalaat talaat te ndet dara tey wat ci bëtam now mënoo ñoo trégo ñun dañoo cinq réew ku bañ dëgg dëgg dëggantaan sa xoolee now yay yay yay yay Thiès yëpp am si wut la dégg naa sa baan yi tappe ngeen bala fokk ñuy teru ji ne ko guddi lu mu man ci kuma

TV am not your yeg i am not your nañu xam-xamam di demee gëm-gëm nañu nga conteneur yi flow Now yeah. hey big up day I'm serious asdoy sëgal tànk fii ci géeju ruwaayam sigi sigi sigi jox sa baay mu naan yàlla yàlla taxul mu baax la jiwul doo ko bay kon nag sëgal mu naan ci gàncax laa tubbee bu ndox turoo fii soxla mor sa wol ma bàkk dañ koy aar bindu ma sowu kolo kolo konte liggit ba may fay bis day mat foo bu ay nga xam nga lii dootul baax de ko bàyyi dem ci sax aw ma zéro aw ma botan sa xol fi mu nàcce la pompe ak tuuti wotee ya ta ko ngem bu bëgg ma daar yóbbante faqat bi

kenn ci ñoom tolluñu fi No, no, no. Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no. I know. no no. gende bu xeb ko tufli ci bëtam ni tere ma a cugu cugu Ni fal ba am appétit bi dee sa bi bon appétit Ndiga yëppay dawal ndege ndiga dugal jola si bit la làkk jola ak ñoom du combat. attaqué xare ba dar marqué leen talaate neer. Eddie Money dama leen di boole benn palaat di nga ne saas. Eddie Money Eddie du perte bataay ma teggi seen i inde kenn du taay mu tulli di mala di si di ko kenn si ñoom tolluñu fi. maa ngi dox ci sama peru muy leeral sama bët xel tani bi sañu la doon sa xaja na ragal zéro bi mën na teewoo. ah ah oh ah

kenn ci ñoom tolluñu fi. ah ah oh oh no no ah no no no oh no no ah no no no. leen jàng ma suñu si amul aigu bi air bi mini bi rëy ma kenn sama chôme lu ma si inconnu liru su mel bi niveau bi mini bi amul benn foo ko dëmme may sa tout temps wu da sof temps nu di wax ma fooy laa ko fooy laa ko c'est comme as mu yë ak kooku ma confirmation yàgg naa ko confirmé ba kenn xeet bu ne laa def sume njàpp yàgg nga war feeñ daañu ku ma mën a faat naa di benn contrôle chrono label du atte sa taxaw du horizon maa gis o o o déy indi la aye ma si la taxaw ma kiling la ma jariñ la déglu ma njariñ la seeti na sëriñ la déglu follow bi fépp lay tegu tegu dem bilim la raagu firin na dem bëggu la gëmu la yëgu la fiiru la sopp la riccu di naba ah ah oh. ah ah oh. Y'a des étudiants pour Oui, ah oh. Ah ah oh. Hey. Ah ah oh. Y'a des étudiants pour le Ah ah oh, ah ah oh, ah ah oh, ah hey. No, no, no. Ah no, no, no. Ah ah oh, ah ah oh, ah ah oh, no, no. Ah no, no, no.

මෙවැනි මන් ගෑන ගෑන ජපනා කරම්ද ගෑන්